am nga jam ma ngi sant yalla ba ba a baax. de di sa xarit di sa doomu nday di mbeur bu bokk seen kuréel tey bàyyam génn àdduna ngeen bàyyi seen yite yéen ñëpp ngeen ñëw. waaw lolu da war ci ku ku ne. parce que ñun julit yep ay mbokk lan Alioune Seye de nak ku ne xam na sama fete la kon bu suñu wajur wo wañi ko da jaadu da war ma déplacer maag julit yep ñew taxaw ko lolu faraloon suñu téwaay Alioune Seye di kenn si làmb daa mel ni yéen waa làmb joxeete ngeen bon exemple seen moroom yeneen mbër yi. waaw parce que duñu ay noon ñun ñëpp ay euh, kii lañ rek ay adversaire de benn tàkkusaan la. bu jaaxee ay julit lañ ay mbokk lañ comme yéen presse bi di ngeen nekk ay mbokk fu ñu leen fekk yéen ngi liggéey di waxtaan kenn teel micro ñëpp ñun tam noonu la war a doxee Alioune Seye 2 di suma xarit di nit ku baax di nit ku bëri valeur lu ma xew la bu gaa yi gëstoo gis ko kon moom it lu mu xew la ah bu gëstu damaa war a gis te su ma sañoon suy xewle sax lu neex lay xewle waaye nag lépp la yàlla boole ndax yàlla ñaari dëgg rek la wàcc te jaam ñi xàmmee wuñ ko beesal ak yeesal tuxook tuxal ku bees ñu yeesal la ñu tuddee la liir bi ku tux ñu tuxal la tuddee la néew bi moo tax saa su nekk jaam bi war a seet li muy defaat xam ne ki kiraay ki fi jógee ba woonu ñun suñu àpp jotagut tey boo amoon tey exemple booy jox si waa lii nii misaal bi ban exemple nga leen jox. waaw misaal bi war na leen ñun ñëpp rek ci yàlla la ñuy dellu kenn wartu noonoo kenn ndax nag euh, yàlla mooy yàlla nañ tàppe xol yi nañ rafetal jikko yi nañ bañ a toppante yenn sew sew yi ndax àdduna fii rek lay mujjee moom moomoon lii fii la dëkkoon ñoo ko denc fii nañuy sóoraale loolu nañuy deflante lu baax nañuy nañuy nëbbalante ayib yi nañu muñalante te xam ne yàlla rek ay yàlla. tay gis nañ nga xewla banex aline sey ñew mu xewla nakar nga ñew kon tay kon supporter yi nañu war a doxalee seen diggante yéen waaw moy mi ngi melni yang may lak pour ma tekki la lima la xon sank sama dom da juddu won tuddu lir bi ñu doon ko beesal aline sey de ñew fi lol moy beesal ak yeesal. motax man la supporter la lañ wara jangé sen yeen seri seen muy nakar muy banex motax mu wara xamni li rek lañ ci wara jangé muy xamni ñun ñëpp ben lañ. du ñu ñaar kenn lañ bi ma judduloo liir tuddee ko liir bi bi ma koy dabaatalee tur Alioune Seye daa ñëw waaye juróom mu góor bi muy judd noonu waaye gis nga bi muy dem dañ koo tuxal ma ñëwal ko kon beesal ak yeesal la fi nekk tux ak tuxal bi may beesal la doon yeesal Alioune Seye ñëw bi waaye juróom di tuxoo ñu koy tuxal laa ko ñëwal moo tax àdduna beesal ak yeesal la fi nekk rek tuxu ak tuxal. wa xaritam dem na ñu diko ko ni ko deug deug xaritam ngeen mom muy sans borom te ko jàmm bu gëm yàlla la bu gëmuloon yalla sàqi na nak da yag ci làmb def fi jaloro ju ne teewut gaay xaw a mel ni ku koy fàtte comme mo meuna muñ lolu te ko jàmm bu gëm yàlla la taalibe sëñ Babacar Mbacke mu kaburo bobu xam na deug ki gën xaritam bi dem mi ngi fi muy yalla sans borom ñu ngi koy denk yalla diko wër ci kaw yalla mu ko yalla ba am yàlla hmm. euh, mbeur hmm. nek ci waccay combat ñax kenn ku nga xam ne jege na ci yow ndax yow jaar nga sa diggante ak sa sa wéyjur bu jigéen nekk nga ci wàccaay mu génn àdduna nga nekk ci préparation tey Alioune Seye 2 mu ngi jëm ci wàccaay diggante mu Quench ñàkk wéyjuram bu góor lan la mën a def ci mémoire am euh, ci préparation combat bi nga xam te jëm na ko ak lim ñàkk. waa diis na métti na ndax man moom jaar naa ci waaye maa ngi koy ñaan nag sama borom dimbale ko ba mu am kàttan bañ ko néewloo kàttan na ma néewee woon kàttan ndax nag waajur jógee ci yow daa mel ni ku sa dënd wajur dafa for nak nuñ mel wajur yi la tay buñ demee ba ñu mi ko yi ñuy wax nañ gërëm suñu wajur yi mom bu wajuram demé ah ñing koy ñaanal ndëgër yu sans borom ba lolé ko dal bañ lolé ma dal bañ ko dal ta am nañ ci yaakar baax ndax jambar la. ah di leen denkat yalla sans borom rek nak magam alam dar suñu mag la ma nekk Espagne dañuy déggante lu bari bu nekk fi dañuy déggante lu bari ndax jugé na fi dem Sénégal dem Espagne mu dima méré ci lutax tax ma dal ci ci mom Barcelone kon koku wan na ma ni ma ak Aline Seyde yëpp ay rakam lañ kon momit diko di ko ko ndax nak bi fi jugé est ce mat na semaine dem nelo ak ginnaawam loolu dafa 10 dafa metti ndax man fajar gi may nek France jugé Sen deni dem stade de France bay daw yi ba ñew ñun ma say nelo na duma faté fàtte mukk ci aduna belisir bobu duma ko faté ci aduna France safatuma woon dara xamna ni ni gisuma alam dar, waye Espagne safatu ko dara ndax wayjur dafa neex ci xol bo xeye bis yalla séparé la ak moom te boo ko ya ko fekk dafa metti ma ngi ñaan way kat bi muñ ma ngi ñaan borom yërmande ji sans borom dolli leen yërmande aral ko njabotam gim fi ba ndax tag na leen ci yoonu siratal mustaqim ba pare ah nit la ko xamné ku ne mun nako sédé seede de day nit ku disponible di nit ko xamné dadi liru jaan da koo mag tax ñu tuddé ko monument géejawaay mais tey yàlla tere yàlla na liiru gudd fan lool buñ ko noppi a gis Alioune Seye lañ koy def ndax pusoom la yor di ñaw rek yàlla na yàlla guddal fanu liiru jaan nag waaye bu dee monument bu mag bi moom liiru jaan Alioune Seye 2 mooy monument bu ndaw bi parce que boo yëpp Alioune Seye 2 ni niñ ko dégg ni ñu déggalee Alioune Seye 2 dégluñ ko keneen parce que moo disponible noonu lu waaye xewle mi ngi fa nekk ku laa bi doon ta taalibe nekk Baye Fall euh, mention spéciale daal dama bañ cat jiitu ko ci li may wax maa ngi ñaan cat mucc ci moom waaw jàmbaar la quoi Baye dëgg yàlla. axlu làmb buñ ñu fi ñëwutoon àdduna di leen a war a ba parce que làmb Alioune Seye 2 la ci comme séer bu weex bay jàmbaar nag def fi lu ne kon bu xewlee muy naqar muy lu doon waa axlu làmb ñoo xewle axlu làmb gi fi ñëw sant nañ leen ku fi dëgg sa tànk rek yàlla la yàlla bindal yiw loolu moo jaadu wane nañ war na leen delloo nañ ko daal lim leen doon lebal quoi ndax Alioune Seye 2 tànqam luwul kenn. moo raw mbana ci xew foo waay dem ci xew jàmbur fekk ko fa waaw lu waay dem rek ci programme mu nit fekk ko fa mu ànd ko ak yow ba mu jeex takk ndigam doon Baay Faal gi mu doon jàppale la wax dëgg yàlla loolu laa ko xamal ci lu baax nekk ku disponible nekk ku ku yaru nekk ku baax nekk benn couleur xaru benn melo la waaw xaru benn melo la quoi. kon kon kon dañ koy bàyyi dañ koy yeewi rek bàyyi ko mu dem ñu ngi lay jaajëfal. ñu leen di sant di leen gërëm yéen tamit yéen ñi ñëw fii jël ci témoignage bu rafet bii ah wax yàlla ñu ngi leen di sant. di leen gërëm bu baax a baax li ngeen def am na solo. waa waa loolu bi ñu ko dugalee sama boroom dogal na CNG accordé wu ko quoi dem bàyyi nañu Serigne Ndiaye victoire am ñun tamit ñu ngi dem xooli leneen et c'est tout. man su ma parewul pour jël benn avance man du ma mbëriwu tàppe di fi nekk di teggi de. déedéet man ci booyu tàng yi sax laa bëgg bëgguma sax. non non dégg naa dégg naa doon nañ jox sa combat ak Alboury amaat si yow la tagee. déedéet tageewul ci man dama laaj luñ ma joxul rek nit nag boo koy may chance daa war a ba ci kase bi. maa yi nga fiy tudd ñëpp maa leen ëppi combat ëpp leen ndam bëri ñuñ bërilul te booy bu ma ci daan day day riisal sa palmarès trop te munuñ maa daan xëy na moo ñuy teggi instant toll yan booy nga pare pour may sens. ñetti booy a daan te ñu ngi leen di dégg ci làmb fi ñuy dégg ñëpp. Reug Reug Ama Balde Franc. Serigne dañoo match nul maam. ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil Manam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman sous la neexee mën nañ la jox kaya Nous avons gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi li fondations ci fondation élevée tabac roulé ak raax ci second œuvre bi nag ci di électricité ak plomberie ETDR nous avons ay boutique